assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk jullit yi soppey mawlaana cheikh sidi ahmed tijaani radiallahu anhu fu ngeen mun a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di dellusiwaat ak yéen ci seen programme ci seen waxtaan تي مولانا الشيخ سيدي أحمد التجاني الشريف الحسني رضي الله تعالى عنه وأرضاه أكتي خلفاء أمي tàmbalee ko ci Seydil Xaaji Ali Harazim Barrada ak ñi nekkoon ci wetam yépp insha allahu taala buñ ko yàlla mayee ñëw nag ba ci mbooleem suñu mag ñi ci réew mi tàmbalee ko ci Cheikh Alxaaji Omar ba ci ñin jamonoon teel inchaa allahu taala gannaaw nuyoo bi ak ziyaara ñi ngi leen di baalu xaq di leen ñaanal yàlla subhaanahu wa taala waaye di sàkku ñaan ci yéen di ñaan yàlla mu boole ñu defal tawfiq bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon nañu ak yéen ci seen ñaareelu waxtaan bele passé ci judduk Mawlaana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ñu jàngoon ca juddoom ga ni nag ndekete moom at bi mu juddu woon muy mille cent bi ñu waxtaane woon junj na lu bare bare bare ci wane ni moom mooy boroom wilaaya gu mag gi mooy boroom xaatimul wilaayati mooy saaxibul katmi wal xotmi radiallahu anhu jàngoon nañ tamit ci ay ñaari waajuram ci Mahamad di waliyu bu mag ak ci yaayam ju tedd jooju di Aïchatu Tahiratul Xassani eh, jàng nañu ci jëmmam ju tedd jooju moom Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ni ku amoon yitte la waaye ku rafetoon jëmm la waaye tamit nit la woon koo xamante ni ku amoon kersa la moo tax boroom jawaahirul maani wa buluugul amaani fi faydi sayidi abil abbaas tijaani muy sayid alxaaji ali xarazim barrada dafay wax ni mawlaana cheikhana sidi ahmed tijaan mustaxilan bil qiraati ku bëggoon jàng la waaye yitteem yépp da ko defoon ci jàng muctaadan li tilaawati dafa baaxoo woon di liir di jàng waaye nag xasana samti ku refatoon ak déglu la waaye tawila samti ku bari woon lu muy noppi la bu masaana wax li nga xamante ni moom moo ko yitteel su paree rek dafay noppi kathira al waqaari wal xayaa ku bari woon wegeel la ak uh, ku amoon kersa la xasanal xalqi ku rafetoon bind la wal xulqi jikkoom tamit moom Cheikh Sidi Ahmed Tidiane jikko ju rafet la woon aliyal himmati ku kawe woon yitte la moom cheikhana sidi ahmed tidiane waaye mutawaadian ku daan wàccee boppam la di toroxlu ci mbooleem jëfam yi du ci wane mukk boppam muaddaman inda alxaasati wal aama ku ñu daan réyal la ku ñu daan màggal la ci jamono yu nekk ci waxtu wu nekk noonu tamit ngay gisee ni am na ay jikko yu bare yoo xamante ni Seydil Xaaji Ali Harazim indi na ko lu jiitu muy wax naan mustagilan bil qiraati waaye daf ci teg mu ni mawlaana cheikhna Sidi Ahmed Tidiane xafida alquran alazima fi sigarihi xifdan jayidan fi sab'ati a'waamin jawaahiru al-maani wa buluugu al-amaani fi fayd sayidi mawlaaya abil abbaas tijaani mooy njaal beenu delluwaay bu ñu war a dellu ci xayaatu cheikhna sidi ahmed tijaani boo demee ci jaamiatul ibni mishri am na lu mu fa indi boo demee ci rawdul muhibbil faani كذلك بودميتي كشف الحجاب بإمام السكيرجي كذلك منية المريد هكذا كذلك بغية المستفيد أضواء آه، تجاني بودميدي نغسني نيوم تيريو يب إننا نيو تي مقلوك مولانا شيخنا سيدي أحمد تجاني القرآن مني حفظ القرآن مقلنا القرآن مم سيدنا الشيخ العظيم القرآن العظيم في صغره حفظا جيدا مكلنا القرآن تندوام مكل برفت مع التجويد والترتيل بابو نياتا أتلام يعني في سبعة أعوام من على ما أخبرني عن نفسه رضي الله عنه مومتي بوبا موم شيخنا سيدي أحمد تيجان moko ko wax Seydil Xaaji Ali Harazim ci bopam mu netli ko mu ni ko man mokalna naa alquran bobu mangi am jurom naari at min riwayati nafi' ala alcheikh alaalimi alsalih والاستاذ ابي عبد الله سيدي محمد بن حمو التجاني مولانا الشيخ سيدي احمد تجان mi ngi mokkal alquran bi riwaayati warshin an naafi'a allahu akbar riwaayatu warsh ñun ñépp xam nañ ni imaamu naafi'a moo jàngal alquran imaamu malik ibnu anasin borom ngir mu rëy mi riwaaya boobu mu doon jàng nag nga xamante ni werante amul kani riwaaya la boo xamante ni bu wér la bokk ci lugatu quraychin bi nga xamante ni yonent bi daan na ko waxee comme riwaaya yépp mi ngi génnee ci làmmiñu yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo xam riwaaya xafs la moo xam qaaluun la moo xam suusi wala duuri wala shuba wala hamza wala kisaa'i riwaaya yépp gannaaw gi la tur yi juddu waaye njàngin mi ñu ngi jógee ci làmmiñu yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yii mu jàngal ko sayidina ubay ibnu kaabin سيدنا زيد بن ثابت سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا أبو بكر سيدنا عمر بن الخطاب صحابة الكرام يقولون مقال القرآن نعم كتناك أمغا رواية ابن مسعود رواية ابن مسعود خمغا آه، نينيو برام القرآن وعينك رواية بنا قمانتني مو dëgër moo gën a yaatu nekkoon riwaayatu ahlil madina ñu bari daan ka jàng ku mel ni imaamu malik ibnu anasin riwaaya boobu mooy riwaayatu warshin an nafia ci la cheikhana sidi ahmed tidiane njëkk a mokkale alquran gannaaw ga ci la dem ca fas continuer jàng yeneen riwaaya yi ci sëriñam yi nga xamante ni dinañ ci ñëw incha allahu taala ci ñoom Sajal Maasi ñoom Seydi Ali Daqaq ak ñu mel ni ci ñooñu incha allah dinañ ci ñëw ngir wane ni Mawlaana Cheikh riwaayatu washin an Naafi moom la njëkk a mokkal ci sëriñam bi di al wali as-saalih ustaad abi abdillahi Seydi Mohamed Ibn Hamu Tijaani Mohamed Ibn Hamu Tijaani mi مؤمن دكون عين ماضي عين ماضي لا نكون مم وقرأ هو رضي الله عنه على شيخه سيد عيسى كاز المضاوي التجاني وخنالا بملاي وخ أسكنوا مولانا الشيخ سيدي أحمد تجان تدولون نالا محمد السنوسي المضاوي لكنك سيدي حمو سيدي محمد محمد ابن حمو التجانيمي من جانجتي الشيخ عيسى بو عكاز المضاوي التجاني نوني موم غور غوغو وكان رجلا صالحا مشهورا بالولاية غور لون غيو غباخ غو خمانتني كسل لون واي كسيوين باخ وفيتامين كسيوي ولاية وكان مؤدبا للصبيان نكونا دي يرخلي دي لين جنجل بجنجل كو جنجل شيخ سيدي أحمد تجاني رضي الله عنه تفن تسين دك بابو nga xamanteni mom lañuy tuddé aynu madi وقد ذكر أنه رأى رب العزة في النوم وقرأ عليه القرآن برواية ورش من أوله إلى آخره محمد عيسى بن عكازة جنتنا جس برامم سبحانه وتعالى تأين لو مجانج القرآن لك تنبلي تتنبلي كايبة بمجيخ ترواية ورش عن نافع kon nga gis ni kon sëriñu sëriñu cheikh Sidi Ahmed tijaan bi ko jàngal alquran gént na gis boroomam subhanahu wa taala mu jàng alquran min albidayati ila nihaaya ka mu jàngal kooku moo jàngal cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu ci waxin ndax cheikh na Tidiane buñ la waxee ba mu jàngee alquran boroomam bi subhanahu wa taala دفنك فقال له ربه هكذا أنزله موم عيسى بو عكاز بمجنتي جنغ ينتبي آه، جنتي يلا برام سبحانه وتعالى مجنغ القرآن برام سبحانه وتعالى دفك وهنك هكذا أنزل وحصل على يديه النفع في القراءة القرآن موم أمن جرين موم محمد بن حمو بو عكازة ci am na jagle bu mu am ci sëriñam bii te moom day ndeysaan teel na génn àdduna ndax mi ngi génn àdduna am ithnaini wa sittina wa miatin wa alfin mooy 1162 àndal ak man nga calculer waat la Mawlaana Cheikh mi ngi juddu 150 loolu laa la waxoon ci suñu émission bële passé ma ne la sëriñam bi mi ngi génn àdduna 1162 kon ñaata at la Mawlaana Cheikhana Sidi Ahmed Tidiane am nga ni ma 12 ans léegi nag naka lañ xamee ni Mawlaana Cheikhana Sidi Ahmed Tidiane mokkal na Alquran fekk mi ngi am juróom-ñaari at baayam. Seydi Mahamad Ibnul Muxtaar moo jàpp ci loxoom yóbbu ko ci sëriñ bi ma la wax muy Seydi Mouhamed Ibn Hamoud Tidiane ni ko dama bëgg nga jàngal Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ndax war na mën a dal jàng léegi ndax am na juróom-ñaari at mu commencé ak moom su bindee Cheikh Tidiane ni ko lii moom mën naa ko. mu ne ko waxal mu wax mu dégg mu laaj ko beneen saar ba ca topp mu wax ko mu dégg mu laaj ko ba alquran di jeex takk mu woo baayam Seydi Mahamad ni ko mankat Ahmed Tidiane daf ma jaaxal kii kay moom mokkal na alquran mu ni ko luy loolu kii toll ci war dal gane mokalna alquran moni ne bismillah kon nagn ko déglu ñu tambale wat diko déglu baqara ali imran nisa maida lanam la'raf tauba yunus huud yusuf racd xijr ba racdi wax naa ibrahim soog a wax xijr noonu la ko ba ñu agsi nag suuratul ixlaas mu ni ko taxawal mu taxaw ñu woote nag ci biir aynu maadi ni cheikhana sidi ahmed tidiane agsi na lixlaas lu tax ndaxte aynu maadi xale bu mës a jàng alquran boo tàmbalee sa fatiha جان قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس برواية ورش عن نافع جان قل أعوذ برب الفلق من يتسار بسبور دالي سورة الإخلاص يقول هو الله أحد دان لي دفال سرخ ونني أكسنغ الإخلاص léegi شيخنا سيدي أحمد تجاه Ahmed Tidiane بلا دف bi la بقرة di tari ba tabbati da ñu ni ko taxawal nag ni léegi daadi di yéene ni agsi na dañ ko war a defal sarax loolu muy lu yéeme yaayam baayam bu tedd boobu ñu daa waajal nag aynu maadi ni leen nañu fekkee si saraxu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane boobu ndax àgg na lixlaas àgg ci lan ci kaw wala ci ñoom ñu jàpp ni faatixaak eh, naaseek falaqi la jàng ñu daal koy defaral nag benn bernde bi ñu defaree bernde bi daadi woote waaye ba ko nit ñi déggee daal di ni Ahmed Tidiane yi moo kër ga dafa fees dell ndax ñoom ay shuraf ay sharif lañ dañoo dañoo jekk ci am teraanga di ko def ñëpp bëgg leen ñëpp sopp leen moom nag ñu soppoon ko bëggoon ko moom Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ak li muy nekk-nekk xale ci zaahir ba loolu amee mbooloo mi ñëw nit ñi bari ah ñu daal jaaxle waaw ñam wi moom du doy li ñu waajaloon yaakaaroon ni lu yam rek lañu ay nit ñooy ñëw waaye li ñëw dafa bari lool lu ñuy def ñoom ñaar nag ñaari waajuram yi ndeysaan di waxtaane loolu jaaxle ndax mbooloo mu bari mi Mawlaana Cheikh Tijaani gis leen rek ñu ngi waxtaan di dugg ak a génn mu daal ñëw waxtaan ak baayam ni ko inchaa allahu taala ñam wi dina doy nañu yekk rek te ñu desal ci cin li mburu yi jëndoon lépp ñuy dagg di séddale commencé seddale ñam wi ñëpp di lekk su mbooloo lekkee ñu daal di jëlaat bool yi dugalaat tibbaat ñam wa dafa mujj des te ñëpp lekk nañ ba suur tabaarakallahu mu njaal beenu kiraama bu Cheikhana Sidi Ahmed Tidiane def ci bis bi nga xamante ni ñu ngi ko doon feetal ngir wane ni mokkal na Alqur'an mokkal ju wér ñu déglu ko mu tari foofu nag lixlaas daal di tari falaqi dadi di tari naasi ci kanamu mbooloo moomu nag ndekete kii kat moom dafa mokkal alquran waaye nekkul ni dafay soog a tàmbale alquran mu ni moom Seydil Xaaji Ali Harazim mooy nettali mu ni thumma bada xifdihi alqurana اشتغل بطلب العلوم الأصولية والفروعية والأدبية حتى رأس فيها موني قلنا وبنغا خمانتاني نك مكلنا القرآن مكل برفت بنيب خم ترواية ورش عن نافع مع التجويد والترتيل اشتغل سخلوانا موم شيخنا سيد احمد تجان يتيونا بطلب العلوم الاصوليه تلانك جوك كما سجانغ خم خم اصول مويلان موي خم خم توحيد موي خم خم فقه والفروعيه والادبيه كما سجانغ خم خم ادب موي لغه موي صرف موي بلاغه نحو بديع معاني اكبالم bayaan mboolem xeetu xam-xam yi mu commencé koo jàng xatta ra'asa fiiha ba mu nag dem ci ba kawe ci lool nekk ci sëriñ wa xasala maaniha waaye maanaawu xam-xam yooyu gannaaw bim ci géejoo moom cheikhu tidiane ci xam-xamu tawxid ci xam-xamu fiq تخم خمو عروض تخم خمو بديع أك معاني بيان نحو الصرف بلاغة ما شاء الله تعالى دفا دمب خم خم يوينك مؤمتي لو خمانتني كان أمكتون قرأ على شيخه العالم العلامة العارف بالله الدراكة سيد المبروك بن بوعافية المضاوي التجاني قرأ عليهم مختصر الشيخ خليل والرسالة ومقدمة ابن رشد والأخضري خمغا وخونا لتي كان لجانجي القرآن كندنا لوقت كان لجانجي الأخضري بمو جانجي الأخضري بباري مو مقدمة ابن رشد تيري فقل بو خمانتاني تي مغرب بارنا نو خمانتاني moom lañ daan jàng jàng na lu ñu tuddee ar risalatu bnu zeyd al qayrawaani bi ñuy xam ni jàng na lu ñu tuddee muxtasaru cheikh xalil daanaka kon nga ni ma xanaa jeexal na mboolem li ñuy wax fiq ci ngiiru imaamu malik bnu anasin ndax yeneen téere yi ci des ay misbaaxu saalik ay yeneen téere yooyu eh, boo jàngee téere yi daanaka ak ku mel ni Cheikhana Sidi Ahmed Tidiane ci déggam gi mu dégg nee na téere yi mi ngi ko jàngee ci Seydil Mabrouk ibnu Bu Aafiya ci la jàngee Laxdariyu Risala Ibn Rushdin ak Muxtasar Cheikh Khalil waaye ndax bi mu jàngee téere fiq yi ak yooyu ndax dafa arrêté ñu nga ni ma déedéet ثم تمادى في طلب العلم زمانا ببلده حتى حصل من العلوم ما انتفع به مولانا الشيخنا سيدي أحمد تجان رضي الله عنه بنا قمان يالا دمبلنكو مجانج فق بدقكو تخمغا حديث يننتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم بم وخون من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين شيخنا سيدي أحمد تجان gannaaw bi mu mokkalee alquran dafa jàng fiq ba dégg ko bu baax jàng yeneen téere yi nga xamante ni moom laa la waxoon muy usul muy alfuruiyati wal adabiya mooy téere yooyu yëpp summa tamada topp mu continue moom Cheikh Ahmed Sidi Ahmed Tidiane mu wëy fii talabil ilmi ci sàkku xam-xam zamanan diir bu yàgg bi baladihi ci réewam moomu xataa xasala min alulumi ba mu am ci xam-xam loo xamante ni man tafaa bihi jëriñ na ko jëriñe ne ci wa kaana yudarrisu wa yufti mawlaana cheikhna Sidi Ahmed Tidiane daan na jàngale di ubbee radiyallahu anhu léegi nag fii nga xamante ni moom mooy wàllu xam-xam ba ci agge nekk ndaw ubbeeku ci bis ndeysaan mu am benn euh, am na ay qaadi yu nekkoon foofu ci aynu maadi ci jamonoom moom mi ngi nekk xale waaye mu am benn góor ndeysaan bu baax bu bu yiw bu yoroon xaalisam ndeysaan daal di dugg ci seen xamaam yooyu daal di fay fàttee xaalisam ngir walla rekk ni la Cheikhana Sidi Ahmed Tidiane dégg gi mu dégg Alquran dégg gi mu dégg xam-xam jàng gi mu jàng de boobu nekk na xale mu daal di euh, euh, góor googu fàtte xaalisam beneen waaye dugg for ko moom mu ñëw ci marché bi di xool rek gisatul dara ci alal ji nga xamante ni moom la fàtte woon ci xammaam bi mu daal di jóg di ko wër ba dajeeg benn góor mu ni ko lan looy wër mu daal ni sama alal moo réer mi ngi nekkoon ci mbuus bu mel nangam nangam ak nangam moo ca nekk te loolu rek laa amoon ci alal waaye alal dafa dafa sànku mu daal di koy génneel mbuus ma daal ni ko ndax du lii waa ji kontaan ni ko allahu akbar yow di giñ naa nitu aljanna nga gaa yi nag sëxatoo ko mu ni su soo nekkul nitu aljanna rek sama sëy moom tas na ak sama soxna ah gaa yi nag ñenn ñi ni ko ci borom fuqaha yi borom xam-xam yi nekkoon foofu ni ko yow sa sëy tas na ndax danga aj sa sëy bi ci loo xamante ni xamoo ci dara léegi comme atte bii nag moom yow mënoo ko atteel sa bopp xamoo ndax kii dafay dem aljanna wala déet nga wax ne moom dafay dem aljanna waxuñu dara nga nga aj si sa sëy kon sëy bi tas na mu daal di ni déedéet sama sëy tasul nanga mag nanga man xam naa ni li ma wax ci moom rek ñu ni ko déedéet yóbbu ko ci borom xam-xam yi yóbbu ko ci eh, qaadi yi nekkoon foofu ñu ci bari ne ko sa sëy tas na mu jaaxle lool nag benn xaritam ni ko ah su fekkente ni de أمنا بين خالبو نك في تجمع سوف يكون تاني خيبوكو ده من قلاتكو سمس ألبي موني كان لا موني كو أحمد التجاني موني أحمد التجاني قلبو ندو باب موني والله ده من رنگ قلاتكو مونيو يتي أحمد التجاني موني كو سسي اتصول ده من قجل سجبار نو دادي مولاد نكو ديدت واحد كسه ني سسي اتصول رك loolu kay du ci dugg ndax boroom xam-xam yu mag ñoo nekk ci dëkk bi nee nañ suma sëy tas na mu ne man maa la ko wax demal ku la wax nga ne Ahmed Tidiane mu ne ko bindal ma kayit Ahmed Tidiane daal di koy bindal kayit ngir wane ni moom moo wax wax ji wane ni kii sëyam tasul ngir wane la rek ni dafa jàng te dafa dégg li mu jàng daf ko xam radiyallahu anhu waa ji daal di dem dajeeg bu ay boroomi xam-xam wan leen ko ne leen Mawlaana Cheikhana Sidi Ahmed Tidiane lii la wax kon man ñu ni ko nag déedéet da ngay indi Cheikh Tidiane bi mu ñëwee wax Cheikh Tidiane mu ni ko waxal gaa yi ñoom nañ ñëw ñi wax ni sa sëy na nañ ñëw ñoom ñëpp ñu joxe seen lay wax fan lañ ko teg man ma wax tamit fi ma ko teg nga gis ni ci xale fulla ji ak fayda ji ak xam-xam bi ak daraja ji ak maqama bi lépp andando mat sëkk ba baram xam-xam yi ñewé tok ak mom ku nekk wax sa wax ku nekk wax mune man dal ci benn aaya kese ci alquran la len di laaj su ngeen ko saxale ma xamni mom waji waa ñu dal ni ay wa mune lan la yàlla wax ci alquran wa amma man xoofa maqama rabbih wa naha nafsa an hawa lu ci ñëpp ne fa inna al jannata hiya al mawa mu ne yéen ko wax loolu du kaddu yàlla ñu ni ah kay mu ne yàlla lu mu wax mu ne waa ji ndax ba muy dem ca place ba nga xamaam ba kan fa fekk mu ni kenn mu ne ndax alal ji neexul ci bakkan ñu ne ah kay mu ne yàlla nee na képp koo xamante ne da nga ragal yàlla te nga not sa bakkan wala hal nafsa anil hawa ba neexu bakkan yi nga nga nga tere ko lim bëgg moom bakkan sa pay mooy aljanna ñëpp d'accord ak moom ci waxam ju jooju moom Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nga gis ni jàng na waaye nag dafa dégg li mu jàng kon su ko defee yaakaar naa ni tey lu jëm ci wàllu eh, njàngum alquraanam ak njàngum xam-xamam ñu ñëw nag ak yéen beneen émission ci waxal leen naka la doon gëstoo borom xam-xam yi kan ak kan la dajeel ñaata borom xam-xam la gisanteel ñaata borom tariqa la gisanteel incha allahu taala ak tukki yi nga xamante ni Mawlana Cheikh na Sidi Ahmed Tidiane def na ko ci maghrib def na ko ci mashriq incha allahu taala in uridu ila al islaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu